géew ba wërante ba takkantey général ak Franc général Franc loolu am na lu ko Franc sànni mu yaali for nañ ko yóbbu cey loolu maar ñaari mbër yaa ngoong de cey maar waaw waaw waa lii la général mu ngay bale tànk ya de nee ko li daa dëgër arbitre leen di woo Franc ngu taxaw ay Émile François Gomis samedi comme tey Yaafi finalu samedi tey le 3 avril Yaafi finalu waat Franc ay Franc waaye ay général final ren ci Ndakaaru moo ko njëkk moom général ee eh cey loolu maar yàgg maar bi combat dañ leen di présenté yàgg maar ma wax nga fat nga jàpp leen Dakar ren ba pat bi fi njëkkaam jag sa ko tëgg final ba général Malika ko finalu gagné deuxième ba ca topp la 27 Fallou Ndiaye ko tëgg di samedi ji passé Franc ko finalu gagné. tey ñoom ñaar ñooy finaalu jàpp nga looloo. kon leer na général Malika Ngong Franc yóbbu ki ku yëkkati nga say loxo. waaw que le maar fu neex ci yow wala fii neex na. neex na neex na. waaye waaj ñaar ñoo xam ne ni ay bërekat lañu ay Franc daa woor ba woori nag naan nga lax ba doyal. yaa dégg way wa cey avertissement général lu mu def arbitre soufflé na ñu ngay lewaatoo Fara à droite Zé à gauche eh way naa ku may nuyu ku may seetaan daw na jël ko mu we mu bañ Fara daa bëgg a bëreeg moom mu gaawu waaye kenn du sëñ Fallou ñaa bilaay yaa wuur borom Marok ñaari mbër yaa ngay xoolantey lewaatoo ana Abdou Bama Sène Touba Sandaga Abdou bu mag bi daw na jëli ko mu génne ko général sol na ko wañ mu bañ ñu nga cere ee way cey Equivox TV ñoo ma doy de ci lit simple rek wala lit avec frappe wala lamb yokk ca kaw fara bañ da koo bëgg a wër fara falan lay wër day bañ mu bëtt ko yàgg maar nuyu naa ku ñuy suivre ñaari mbër yaa nga ca bëre bu tar waaye bu kenn fàtte la siis ca Sen TV en co promoteur bu mag bi l'homme des grands événements Modou Lo Ama Baldé jàkkaarloo eh bu leen ko raté waaw jarta jaawale ca télé bu mag booba ana bugaan gay dani borom Sen TV nuyu naa ko waaye kenn du Saliou Khoulé sama xarit boobu ca Sen TV Pape Moussa Traoré borom la tribune waaw ñu nga ca de eh waay ndeysaan ñaari mbër yaa nga ca yàgg maar lii neex na de wala daa concentré wu. ñaari mbër yi combat bu metti la ñuy bëree ramas la parce que boo xoolee cey mbayang lum waxal lu la neex cey loolu hey fara bëgg général ak Franc Franc tere na ko lool de dina ko daan de wala bañ na de da koo bëgg a wër Franc da koo bëgg ŋoobu wër na ko ŋoobu général mbaa daanu foofu baaxul ci yow dañ lay wër see dañ lay daan see dañ lay daan see mbaa duñ daan see doo génn foofu wër nañ la ndomba trois appuis da koy daan ay Franc ay Franc wër na ko ndombo naan na ngalax ba mandi naan na ngalax ba mandi Zé bañ na ngalax gaa neex ngalax ak buy tiga dege oh puusal waay ngalax ak buy loolu la Franc naan daa wori ee eh, Zé bañ na de maar ñu ngay jeexaat xoolal gaa yi ee eh, waay wër na ko dina ko daan dina ko daan na ko jeex na ay Franc ay Franc ay Franc ay Franc defati na mbir man maa bëgg mbër mi Zé ñàkk na ay Franc ay Franc ay Franc merci beaucoup félicitations. merci beaucoup. <laughs> et puis et puis bonne fête de. waaye joie Pâques à. xanaa yi da ngaa naan nga lax ba suur da nga doon woor. <laughs> non du loolu sax demeewul noonu li ma doon lekk rek laay lekk ah. ah. mais naan nga ci nga lax. waaw mais après dinaa ci naan quoi. mais man xam lu may laaj. Franc façon bëre bi muy bëre. da koy teg ci yoon de A à ba ba muy daan adversaire am. waaw yëpp nekk sumay loxo ñoom grand rek ku ci mel ni Papa Sow ak samay course course course lato course Souka ah. course Ballou Diouf ah. Père Serigne ñoo may ak laay ñoom war ak waa jàmbaar académie yëpp ñoom teg ci code mhm. ak waa Parcelles Assainies am na lu ma lay laaj dama ko dégg fan yi ñu ne sa licence da nga ko renouvelaat ci dóor dóoraat xaw ma parcelle mbooloo parce que euh, mënoo am licence fële waaw yëpp benn la parcelle yëpp benn la ñun ku si jug rek parcelle ngay génnal parcelle mooy parcelle mooy boot sa ginnaaw amul dóor dóoraat amul amul amul fenn lépp parcelle la comprendre nga nañu bàyyi yooyu ñuy def Babacar ñun parcelle rek moo ñu tax a ñun parcelle moo ñu ñor ay doom parcelle lañu ñu fi taxaw yëpp parcelle lañu dëkk comprendre nga yooyu amul amul amul amul. mais dañ la laaj xaalis un million. non yo kenn laajuma dara xam ga waaw mais yàlla baax na ko quoi di gërëm ñëpp di sant ñëpp. waaw général champion ñaata yoon ngeen daje. waaw moom champion la. ñaata yoon xaw ma sax luñ daje non xaw ma luñ daje. ah waay waay anyway anyway boo Ibou Ndiaye Ibou Ndiaye keroog ni mu la waaxoo gaal gi loolu doyut waar. waaw mais la sport noonu la. keroog mayu la muy ni maa jël fii amul problème. sport samedi ko jël. waaw mais noonu la sport noonu la sant yàlla. félicitations merci beaucoup. merci jaajëf ko boo yo ta e nderi laafiya cosaane asan doon yoo taay ne lul ji oo salma nge noo hanjuk bataneey ngal maag ma sanma ngeno xaƴu watane ngel manelul jo ma sanma ngeno xaƴu watane ma am nga jàmm am naa jàmm Babacar kontaan ci maa gën a bëgg ci yow. waaw xam nga ne yaa ngi bëgg ci yaw ah man bëgg naa si ñoom ah. bilaay réew mi bëgg nañ. bilaay maa leen gën a bëgg fii laa leen def. rawatina askanu la. ndeysaan. waaye yal na sa fan gudd noonu la amin amin yal na nga wér. amin amin amin Makula nyama zimala yongolola apa menye angate Magula nyama zimala yongolola paminyan gatiri. kii wax rek nga mbayang nag faw nga defal ma dara parce que nag. Magula nyama zimala yongolola paminyan gatiri. ci yokkoon ne kii wax su na gën a neex. du mën a ñàkk loo def baax na. Babakary lamta Equivox ni on ta nderi ngel cosaane Babakary lamta Equivox ni on ta nderi ngel cosaane aw leen presse bàyyil mu dem Babakary Lamta cosaane Babakary Lamta Equivox suñu temps nderi ngel cosaane cosaane Equivox Union Time ndiri ngeen cosaane yi doon suivre Equivox TV maa ngi leen di nuyu di leen ziar di leen remercier di leen ñaanal jàmm dégg ngeen nag li Mbaye ak lu mu wax kon nag li waay di wax wala nga koy def booy jëf daal nanga man la ngay def lii andi man nag mooy nga jàng ba mokkal sa métier moom nag daa jàng ndax Khady Diouf la doon àndal yar waago yal na ko yàlla yërëm kon Mbayang Loum gars yi bëgg nañu Sénégal yëpp bëgg nañu gis nga ni ko gars yi taxawoo ñëpp bëgg a am numérom lii moo lay wan ne maar booy jaay keccax sax am ca fulla mbaa caaf mbala daqaar bilaay